ah pour jigéen ñi moom su ma waxee seen jafe-jafe moom bari na bari trop waaw comme affaire schooling léegi nit yaa ngi dem school dëgg schooling bi ñu ngi koy dem ni ñu ko war a demee after graduation dangaa mujjee toog comme sa mag ji ni mu ko waxee góor yi su ñëwee danga mujjee dem sëy